Euh, ma jàll tuuti ci moyen de prévention yi mais mhm. balaa moyen de prévention yi bëggoon naa rappeler je pense que micro bi wax nañ ko léegi mhm. Mhm. Euh, doomu jàngoro bi su duggee ci yow moom am na nu muy màndargaal sa yaram mooy symptômes yi waaw moom ñoom de sëqët bu tar la ñu wax bu dépassé une semaine voilà sëqët bu tar sëqët bu tar loolu moom mooy maître symptôme bi maanaam loolu faw day am ci feebaru tuberculose te sëqët bi su ñëwee dafay nekk sëqat bu yàgg c'est pourquoi ñun dañ ne si suñu programme de prévention yi su dee am na sëqat bi nga xam ne dépassé na 15 jours rek war nga xalaat tuberculose mm-hmm. donc sëqat boobu dafay nekk saxat bu tar mais day ànd ak yaram bu tàng surtout guddi bi mm-hmm. day nekk yaram bi nga xam ni euh, vraiment day tàng ba pare da ngay ñaq guddi bi da ngay maigrir bu baax parce que daal sa yaram day wàññeeku sa appétit wàññeeku da ngay tayal mën nga tëfli mu ànd ak ay deret yooyu ay complications hémoptysie donc signes yooyu faw nga gis ko ci tuberculose mën na nekk benn wala ñaar yu ànd mais saxat bi moom tout le temps daf ciy nekk mm-hmm. donc su ko defee nag loolu tout le temps soo ko gisee ci nit muy ñaar wala ñett seen doom wala yëpp àndandoo. Mhm. war nga nemmeeku war nga xalaat tuberculose. daal di dem ci structure de santé bi nga xam ne moo gën a jege pour ñu jël sa tëflit pour mën ko xool. loolu mooy màndarga yi. Mhm. Euh, moyen de prévention yi nag moom euh, je pense que yomb na waaw parce que euh, li njëkk ci prévention moom mooy fexe ba ñëpp ñi nga xam ne ñu ci population bi. di jànkoonteeg feebaru sëqat ñu mën leen nemmeeku détecté leen faj ah. leen ba ñu wér parce que ñooñu ñooy wàlle parce que su fekkee ni par exemple da ngay xeex ak feebar il faut nga dem ci source ba mhm. il faut que nga def luñ naan rompre la chaine de transmission te rompre la chaine de transmission mooy fexe ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi sëqat am sëqat bi nga xam ne day wàlle Euh, vraiment ñu ñu mën a faj leen mais mais est-ce teel balaa ñuy gën a wàlli nit mais est-ce que docteur ni ñëpp ñëpp xam nañ ne euh, bu ñu demee faju dinañu wér parce que xaw ma nag seetlu ngeen ko mhm. mais temps yee journaux yi dañu wax kenn ku tuberculose rayon ku doon jaay kafe alors dañu ñëw fekk mu sëqët tëdd ci ay vomissures yu yu am deret ak yooyu ñu ne tuberculose moo ko rey donc kooku feebar na sëqët ba dee te da doon jaay kafe donc man loolu dalu sama xel trop mais euh, dem ba ba ba dee te centre de santé jege la te traitement bi il faut le dire c'est gratuit loolu naka la mën nekkee. waaw bon loolu moom euh, euh, je ne sais pas trop lu ko rey parce que gëstuwuma côté yooyu. mais jàpp naa ni rek ni tuberculose day reyaate effectivement su fekkee ni fajoo ko mën na am 50 pour cent de décès bon guérison spontanée mën na ci am waaye loolu dafa néew donc bépp feebar bi nga xam ni feebar la bon soo ko fajul faatu mën na ci dal. Hmm. Euh, donc euh, mais li am solo li am solo moom mooy nit ñi euh, vraiment bàyyi xel. signes yi nga xam ne ñoom lañ leen di wax mu nekk signes yi nga xam ne faw soo ko amee il faut nga xalaat tuberculose donc loolu lu lu lu am solo la d'autant plus que ministère de la santé depuis des années vraiment def na ay jéego yu am solo ci traitement bi soo demee dans tous les centres de santé du pays traitement tuberculose dafa am garab yi ñu ngi koy joxee gratuitement mais ci traitement boobu euh, man dama seetlu ne malaat yi mhm. dañuy ñëw mhm. naan seen garab ñibbiwaat mhm. mais ku feebar ba ba loof tuberculose ak ni ñu waxee ne dafa metti nit ki day faible day tayal lan moo tax doo leen ko jox traitement mu dem këram tëdd di ko naan lu tax muy obligé tous les matins mu ñëw ci centre bi naan garabam seen kanam ba pare doo ko dem lan lan ngeen ci jublu. waaw traitement bi euh, comme ni ma la ko waxee pour les nouveaux cas 6 mois la pour ñi nga xam ne nag dañoo rechuté dañ leen defalaatal lu ñu naan retraitement ñooñu huit mois la mais lu tax ñuy ñëw ci centre de santé bi di naan garab ci kanamu agent de santé mais mën nañ ko naan tamit seen kanamu membre famille wala mën nañ ko naan aussi seen kanamu membre communauté. lu tax ci kanamu nit. lu tax parce que dañu bëgg a protéger garab yi bañ malaat bi développé luñ naan résistance parce que garab yi ay garab yi nga xam ne aussi il faut ñu teg ko ci yoon. suñ koy jël parce que malade yi mën nañu jox garab yi ñu daal di dem tey ñu jël suba ñu sottee gannaaw suba ñu kii loolu day dem ba indi résistance. Hmm. donc loolu moo tax ñuy protéger garab yi ngay ñëw di ko naan devant un membre de la famille devant un agent de santé wala devant un membre de la communauté pour mu wóor ni garab yi vraiment nit ki mi ngi koy naan normalement te du ñu indil jafe-jafe. parce que résistance su fekkee ni dafa génn fenn vraiment il faut que aussi ñuy wutaat yeneen moyen pour faj ko te je pense que sax jànkonte nañu actuellement li ñu naan résistance tuberculose. Mm-hmm. muy lu doy waar. Mm-hmm. waaye kon 6 euh, mois nit di déplacé wu di dem di ñëw di naan est-ce que du jékki-jékki tane rek toog dootul ñëwuti est-ce que am ngeen moyen yoo leen ko contraindre pour mu ñëw continuer traitement wala bu boobaa noo leen di def. waaw mais xam nga loolu yombal nañ ko. mën nga def traitement devant l'agent de santé mais léegi wax naa ni mën nga def traitement devant un membre de la famille maanaam kenn ki nga xam ne dafa sës rek ci yow. ñu jox ko mhm. garab yi mu lay surveiller. mën na nekk tamit kenn ki nga xam ni sa quartier la nekk relais la lu naan relais communautaire mu ñëw chaque jour ngay naan garab yi devant moom. donc euh, facteurs yooyu yëpp étudier nañ ko. Mhm. étudier nañ ko xam nañu distance yi parfois aussi du yomb. Euh, fexe nañu aussi ba nga xam ni paj bi gën a jege askan bi parce que bu njëkk ba dañ ko doon def rek ci centre de santé yi mais léegi dañuy dem ba ci poste de santé yi hmm. maanaam dañu décentraliser traitement bi ba ci poste de santé yi loolu yëpp pour fexe ba nga xam ni yombalal faj bi askan bi duñu mën a def distance yu mag pour jot traitement bi nga xam ni moom la ñu soxla hmm,